demal ci netaali ñaar fukkeel bi ak ñett benn yoon rekk la nit mën a jaar xam yàlla yàlla wax na doomam ji yeesu kirista ngir mu won ñu yoon boobu yeesu nekkoon na ci àdduna bi ay at yu bare ci gannaaw def na jëf yu baax yu bare bare bare yoo xam ne ni daf ko def ngir dimbale nit ñi won ñu yoon woo xam ne ni suñ ci jaaree yàlla xolam dina sedd ci ñun waaye ñun toppuñ ay yoonam waa ñun dañu bàkkaar te li nga xam ne nii mooy mbugali bàkkaar mooy tàggoo ak yàlla ba faw yàlla musal na elisa ak daniyal ak ñeneen yi nga xam ne ay nitam lañ musaloon na leen ci dee waaye musalutoon yeesu ci dee de dañ ko daaj ci bant yeesu pare woon na pour jël suñuy mbugal ñu doom aadama yépp te jël na ko ndaxte daf ñu sopp tey yàlla mën nañuy baalal suñuy baakaar te it mën nañoo dellu ci moom moo dekkal suñu xol maanaam xol bi nga xam ne ruuwa la te mooy tax ñu mën a jokkoo ak yàlla te dinañ ci mën a jaar ñu xam yàlla ñu sopp yàlla te ñu koy déglu yi tamit demal ci nataali ñaar fukkeel bi ak ñeneent su waaye àdduna walla xar la dund doom aadama dafa mel ni ngay dox ci yoon wu yaatu wi nga xam ne fam lay jëmale dee la yàlla amul benn doom aadama boo xam ne kontaan na ci sa mbir ndax ñun yépp ñu ngi ci yooni seytaane te mbugal gi ñuy yóbbu mooy mbugal gi nga xam ne ba faw la duñ gis jàmm daj na coono be ngir mu musal ñu ci mbugal mi nga xam ne ni moo ñu war a dal ba génnee foofu dafa dekkiwaat tàmbaliwaat di dunda tey mu ngi won yoon woo xam ne ni mooy jëm ci yàlla te ñun yépp war nañoo topp yoon yeesu wii nii tey yoon wu na xare jaar la te dafa sew yenn yi dinañ daj ay coono ci àdduna comme ni ko Daniel daan daje moom ak xaritam waaye yoonu yeesu wii nii mu ngi jëm aljana benn coono nekku fa bërëb boo xam ne nii la ku fa dugg mbégte la be faw ku fa dugg sa xol day sedd be faw te yàllaa nga foofa yéesu ne man maa yoon wi ma ne amul kenn kuy dem ci baay bi te jaaruloo ci man suma waay ñaanal ci turu yeesu léegi oo ko mu won la yooni yàlla